li nga xam ni moo nekk le ministre de l'intérieur di Jean-Baptiste Tine moom moo defoon benn circulaire euh, invité les les les préfets les sous-préfets en collaboration avec euh, les collectivités territoriales. ñu daal di euh, dégager un tout li nga xam ne moo nekk ci voie publique bi. alors naka ngay jàngatee le discours le poste de Ousmane Sonko et visite bi mu amal Colobane. waaw alors euh, déjà tout est bien qui finit bien mooy ne euh, coow lii euh, daanaka visitu Ousmane Sonko fay na ko <laughs> euh, te bu ko fayul woon mënoon na indi yeneen i guute ci réew mi. mënoon mm-hmm. na indi yeneen i coow situation bi doonoon na gën a mën a compliqué. Mm-hmm. Euh, je pense que use na ci déjà le fekk mu nekk moom Ousmane Sonko nga xam ne nit la boo xam ne nit ñi am nañu ci moom yëg-yëg. Mm-hmm. am nañ ci moom également cër. boo xamante ne bu wàccee sur terrain buy wax ak euh, askan wi dinañu ko déglu euh, te bu nu ko dégloo itam daañu mën a xëcc li nga xamante ne moom mooy njariñ li mhm. euh, ndax njariñ li njariñu ñëpp la njariñu askanu askanub lépp la mhm. léegi nag li ma bëgg a wax foofu mooy nii Euh, xam nga déguerpissement du domaine u état booy xool mm-hmm. déguerpissement domaine u collectivité locale yi la mm-hmm. parce que ñoom lañu ko joxoon ñu cërale leen ko te amul benn état boo xamante ne mu ngi nekk fii ci réew mi li ko dalee euh, en tout cas du régime de Wade mm-hmm. jusqu'à nos jours bu réussir lépp lu jëm ci wàllu déguerpissement marchand ambulant yi euh, problème la boo xamante ne mu ngi fii depuis des années te régime bu ci nekk bi nga ñëwee jéem nga essayer jéem nga tester jéem nga xool ba xam naka ngay defi jéego pour que lii nga xamante ne moom la ñu seetlu ci mbeddu ndakaaru yi te ñun ñëpp ñu d'accord ne jaaduwul dëppoowul ak yoon mm-hmm. ñu fexe ba naka lañu ko fiy jëlee ba nga xamante ne espace yi dina gën a yaatu mm-hmm. ñiy jaay daañu dem ci bërëbu jaay yi mm-hmm. ñiy jënd fekk leen fa Euh, kër yi itam mën a respecté normes tali respecter normes yi nit ñi am trottoir fu ñu doxee oto yi itam am am yoon bu ñu jaar. Mhm. Euh, te loolu bu nu ko defee itam dafay régler li nga xamante ne moom mooy la question de la sécurité. Mhm. mais loo gis ci àdduna rek dafa am abdu xaadar ci yoon bu ñu ko war a mën a jaarale. Mhm. mooy ne ginnaaw bu nu constaté ne dakaar am na anarchie bu rëy boo xam ne moo fi am. te ab capital mënul continuer di doxe noonu mooy ne euh, da lay neex rek nga soit nekk marchand ambulant moom mooy kiy wëndeelu yor bagage am di taxawaal. Mm-hmm. Mm-hmm. mais le pire mooy ñi nga xamante ne ay tablier lañu mooy dañuy ñëw daaj seen taabal toog. Mm-hmm. ci kaw tali euh, di jaay seenum jaay boo leen fa jëlee ñu ne ñoom kat fii la ñuy daanee seen doole ci lii la ñu yaakaar. te alors que ñoom fi ñu koy def c'est de manière anarchique. waaye man ak manière anarchique boobu dafa am ko leen ci accompagner. ñi leen ci accompagner mooy ñi nga xamante ne bu ñu leen fekki seen bërëb yooyu xam nañ ne fi ñu toog nii du yoon xam nañ ne fi ñuy jaay du yoon waaye terewul dañ leen di daggaloo juuti mm-hmm. surtout juuti googu ñu leen di daggaloo mooy dafa mel ni rek autorisé nañu la daanaka nga toog fii nga toog nii di jaay mm-hmm. ñenn ci yenn kayit yi ñu soxla ci wàllu kër euh, collectivité euh, locale yi mm-hmm. mais mairie ñoo leen koy jox te dëppoowul ak yoon kër yi nga xamante ne da ngay dëkk sab kër euh, nga bëgg yow kat def investissement ci kër bi nga dëkk nga war a yem ci fi nga xamante ne sa délimitation kër foofu la yem. Mhm. waaye yow nga xëccaat quelques mètres ndax dangaa bëgg ubbi magasin. Mhm. boo xam ne danga koy loué nga nee nga yeeyaay mu mën laa jural dara waaye fa nga laalee bokk ci fi nga laalee ci voie publique bi la bokk. Mhm. loolu itam euh, nekkul lu dëppoo ak yoon donc d'accord nañu ni anarchie bi am na. d'accord nañu ni dëkk bi léegi fépp foo xamante ne espace am na fa muy bët. nit am na sañ-sañu toog fa te mm. dëppoowul ak yoon mm. mais déguerpissement boo gis ak yëkkati boo gis dafa am yoon bi muy jaar mm-hmm. li leen naqari mooy le fekk ñuy ñëw toj seeni bagage mm-hmm. déguerpir leen te soit yëgaluñu leen wala jiitaluñu waxtaan jiitaluñu sensibilisation te au delà de tout la nit boo ko fekkee ci benn place boo ko yëkkati boo ko yëkkati dem foo ko dugal mais mënoo koo yëkkati na ko demal mm-hmm. ba pare yàq ay bagaasam te yow investissement ba mu ca def ak koppar ya mu ca def jugewul ci sa poche. Mhm. pour man nag dafa am renom politique bu ci amoon man loolaa jàpp bi ma déggee coow li am je me suis dit attention ñii am na benn coow bu xam bu xew muy coowal déclaration politique générale. Mhm. ñu ngay wax ci loolu pareegunu te comme Sénégal tout le temps au cherche des sujets à débat. Ouais. te surtout que léegi ñoom avantage wu booy xool opposition bi mooy ne dëgg-dëgg que ce gouvernement là ñu bañ a déggoo ak seenu askan. Mm-hmm. donc c' est une très bonne idée pour que ñu jaaree ci ci wàllum déguerpissement bi pour semer li nga xam ne moom mooy zizanie bi am ci diggante. ces commerçants mm-hmm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy état bu Sénégal. Mm-hmm. donc Ousmane Sonko ne comme man j'ai été saisi par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mu bind ci page Facebook am ne day dem Colobane. mais justement ci poste boobu mu def ci page Facebook moo indi polémique naka la euh, premier le ministre de l' intérieur di defee benn circulaire te moom bi nga xam ne moo nekk le chef du gouvernement mu ne yëgu ko. c' est un problème de communication bu am ci seen diggante te xam nga Ousmane Sonko nit la koo xamante ne. dafa spontané te mënul nëbbu ci ay mbiram. Mm. bu doon xëy na keneen koo xam ne dafa tàmm wala wàlle ci wàllum politique yàgg ci bu baax a baax. Mm. xaw ma ndax wolof bi noonu la ko na ko na ko saa wolof noonu lañ koy waxee wala déet. Mm-hmm. xëy na dina wut yeneen technique yoo xamante ne fa lay mën a jaar mais Ousmane xam nañ ne c'est une personne entière benn beneen bi ci topp mooy ne xam na xamal na askan wi du benn du ñaar du ñett ne ay ministre yi muy liggéeyal. Mm-hmm. Euh, kenn ku ci nekk mu buggul influer ci sa liggéey maanaam buggul a jox direction. Mhm. par rapport ak li nga war a def ak fu mu war a def. Mhm. mais li war a nit ñi ndëkk comprendre ci seenu bopp mooy ne naam même bu fekkee circulaire am na déguerpissement du ci domaine état. effectivement déguerpissement domaine collectivité locale. Mhm. donc collectivité territoriale googu ñoo war a organiser lu jëm ci wàllu déguerpissement marchand te ñoom ñëpp. jéem nanu waaye échec lay mujjee mooy ni kon il faut loxol état dugg ci. Mhm. pour que loolu mën a sotti. pour que li nga xam ne moom la ñuy xeex nii yëpp mu dañ. Mhm. te buñ dee waxante dëgg Abdou Khadre. Mhm. Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom rek ñoo mën a soppi réew mi. xam nga lu tax. ñoo ko mën a soppi parce que ñoom ñoo am dooley mbooloo bu leen nit ñi dégloo. ci xel ak ci xol. bu fekkonte ne nit ñi li ñuy wax ci wàllum traitement wu Colobane boobee. Mm. ne da il été hué que dafa am ñu ko yuuxoo te finalement booy xool vidéo yi leneen moo fa xew. mooy ne ñañ doon toj seen table sax tey la ñu gën a amul cofeel. mais mais nag am na am na ñu ko yuuxoo am na ko yuuxoo c'est normal parce que boo xamante ne yow da nga xam nga Colobane bokk na ci théâtre de heurte yi gën a mm-hmm. tar. ci période préélectorale yi. Mm-hmm. yow foofu ay ndaw dañ faa xeex. Mm-hmm. ñeneen ñi dañ faa dem voter ji massivement pour que gouvernement bi taxaw. effectivement kon ñoom bu ñu xëyee. gis ñuy toj seen table. du nu wax mairie bi la ndax xamuñu dañ naan Ousmane Sonko la. Mm-hmm. wala dañ naan état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi leen xeexal ñu ngi leen fal ña ngay toj suñu taabal. Mm-hmm. noonu lañ koy jàppee donc mm-hmm. c'est normal que colère bi nekk ci ñoom. mais fi ko nit ñi bëgg yóbbu Abdou Khadre tollul foofu. d'accord ah, foule bi fa dem fekk ji bu fekkoon danoo meree noonu Ousmane Sonko mbooloo mu mel noonu dana ko fa xaar. ñi ànd ak moom moo ëpp ñu ko doon yuux mais parce que Ousmane Sonko la yàlla may. Mhm. xolu maanaam la yàlla may vidéo boo xamante ne ni nit ñi fu ñu ko gisee dañu koy bëgg dañu koy naw te dañ koy te Ousmane tamit ci discours bi mu wax ak ñoom mooy ne wax na leen dëgg nee leen fi ngeen tegu nii ñun ñëpp àndandoo nañu d'accord ne baaxul na àndandoo nañu d'accord ne maanaam fii du place boo xamante ne fii la ñi ñi war a mën a toog wala fii la ñi ñi war a mën a jaay. Mhm. waaye lépp dafa am ci yoon ak procédure bu muy jaar. te gëm naa ne ñoom fi ñu toll ci wàllu. maanaam askan wi fi ni ñu leen bëggee ak ni ñu leen fokkee bu ñu ci góorgóorloo jaar ko fi ñu ko war a jaaralee waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal commerçant yi bu ñu leen jëlee fii am fu ñu leen dugal ñenn ñi nga xamante ne jaay du seen mbir ñu leen ci leneen parce que xale yi dañuy dem di jaay ndax amuñu lu ñu def ñenn ñu ci bëri ci ñoom ay diplômé lañu jàng nañu ba yeey këyit ñàkk pexe moo leen dugal ci njaay mi ñooñu bu ñu leen orienté ci loo xamante ne dina leen permettre ñu mën a daan seen doole comme l'a dit xëy na ay fonds d'appui yaa ngi fii DER fonds CHIP ak yeneen yu ni mel mais pas que ça il faut ñu taxawal ay industries yu yoo xam ne ndaw ñi fa la ñuy liggéey mhm. ba nga xamante ne dëgg-dëgg dinañu am ay bras armés jeunes yoo xam ne seen liggéey mooy doon luy suqali réew mi mhm. au lieu que luy gën a wëyal anarchie bi marché yi ñu toxal leen waxtaan ak commerçant yi ñi ci war a jote yëpp jote ci defe naa mbir yi après dina sotti d'accord